booy kii nu mu tudd booy bi nekk fii. Euh, Faalaay 2 sama booy la ku baax Faalaay 2 ndaanaan la ñoo ngi déggal. Eh, eh, Efra Rousse sama booy la. Boucher sama doom la Ramdan grand champ ñoo daan gisante woon waaye ñoo dee moo booy bool ñoo nekk. maa ngi déggante ñoo ma doon woo tout le temps. Mm. samay booy lan ñoo ngi liggéey am na jom. yàlla na leen yàlla defal jàmm li ma la bëgg a laaj hmm. lan lan moo tax mbër yi dem toog foofu ñëppay liggéey léegi ñëpp nekk ñëpp muy baax la toog te ñoom ñëpp dañu nekkoon ci euh, euh, dafa la toog ma nga fa toog léegi di liggéey yor jabaram fan yi la doon am ngénte ah waaye jabar ji am na doom fan yi passé maa ngi koy ñaanal doom yàlla maa dumbul jantal booy américaine am Efra Rousse waxi nopp am na fa jabar ñu ngi toog neex man damaa ñëw ñoom ñëpp ñu bëgg ma xam ne suñ grand la euh, seen grand la ñu teg ma sama place jox ma mm. sama cër mm. mba at kii itam gis naa fa benn yoon ndeysaan moo xamee lu sax booy bi doomu tubaabu joor bi euh, Naar Touré oh Naar moo yor fekk oto mu droite booy bu baax noonu yàlla ko yàlla defal jàmm Naar Touré kon daanaka booy yi fa dem yëpp ñu bëri am nañ jabar ma fa gis ñëpp ñu ah, ñu am na jabar am nañ jabar am na jabar Infra Rouge waaw Euh, sama sama xarit bi ñu ngi doon déggandi temps yi passé Jaguar. Jaguar oh, jantal booy gisantewuñu nag. waaye ma nga fa non ku baax la gisantewuñu nag gisantewuñu. ak benn booy bi Koña tam ma nga fa. ñoo ñëpp gisantewuñu waaye waaye dégg naa leen fa. Jaguar ku baax la non jantal booy la foofu booy yi daal am nañ jom ñoo ngay liggéey. Hmm. Hmm. làmb ji nag ñoo ngi fi. du ne dem leen. du ma ne dem leen. Hmm. ndax ndax xaaral ma tuuti. ku ci nekk yàlla sagal la. nga ci am sa wër wërsëg. mun ngaa ñëw dem ak ñëw di bëre koo xam ni làmb ji neexut yow. Hmm. mën ngaa dem toog liggéey. Hmm. man nag soo gisee ma ñëw man kilifa laa. Hmm. dama fee bàyyi njaboot. daa ñu la soxla déglu ma dafa am ñu ma soxla. te bugguma faa toog di yàq samay këyit. 10 ans lan ma may. saa yu ma neexee dem. saa yu ma neexee ñëw loolu kese la. comme am nga ay millions di sol chaîne 2 millions. bu la neexee mën nga ñëw yàlla may na sama nitu baax sama rakk ji ay Balla Gaye 2. ay ñett yor ay ñetti iPhone ay Balla gay 2 ay Balla doomu Double lees Boury Bathily Baye Mouhamed Baye Sëñ Saliou rakku Lirou Diane le lion le lion de Guédiawaye ak Lac de Guiers 2 sama rak sama xarit yàlla na ko yàlla defal jàmm hmm. ak Alioune Seye 2 mais gisante nga ak sa xarit guy gi guy gi mi ngi fa yaa ngi fa waaw dégg naa sax yéen ñaar da ngeen jot a laale lan lan moo lu laale sax lan la du laale mais lan sa problème ak guy gi man c'est ça euh, mon problème bëgguma waxaat foofu loolu après ndax sama rakk la waaw xaaral xañ na daa juum rek dëgg la man tam bi may wax damaa juum la def non affaire loolu après ci kanam la yéen ñaar mu ngi waaw après non non sama rakk la euh, guy gi man yéenuma kenn Pape Maguette lu woon borom baax la borom baax Cheikh Ahmadou Bamba billaahi wallaahi hmm. wataalaay fekkee yéene naa kenn lu woon yàlla naa ci jiitu man Pape Maguette yéenuma kenn lu ma xamal la benn affaire hmm, hmm. waaw booy bi man booy ba daf ma bett guy daf ma bett c'est que dafa am nu mu koppati woo loolu rek moo ma bett waaye jàmm rek laa ko yéene yéenewuma ko safaan barki Sëriñ lu Mbakke xañ na daa am lu nekk ci ginnaawam rek loolu man comprendre naa lépp xam naa lépp yéen dafa mel dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen jaxase quoi xam naa lépp xam naa lépp Pape Maguette rek dinaa wax après daa ruubee ci suuf Pape Maguette xam naa lépp Abdou Diouf suma xarit la ñoo fawandoo amoon nañ fi problème yàlla def ñu jubóo yaayam suma yaay la yàlla na ko yàlla defal jàmm yaa mari ku mm-hmm. baax mm-hmm. sama yaay la yaayam mm-hmm. amoon nañ fi ay problème après jubóo nanu nice good bañ gisee Amérique ñoo ngi nuyoo xam nga nice dañuy dox di dajee comprendre nga waaye après guy gi tabaski bi ñoo bokk fu ñu moo géet borom la Vegas ay moo get moo ñu invité ku baax ku mm. gore moo ñu invité daggal ñu billet mm. yóbbu ñu ba la Vegas teral la Vegas teral ñu xawma la Vegas yow mënoo nekk Amérique mënoo wax Las Vegas dimbali ma sa yoon nekk soxor nga trop dem Amérique mënoo dem Las Vegas yóbbu ñu foofu teral ñu vraiment moo gën daal alxamdulillah la Vegas Las Vegas Las Vegas yóbbu ñu teral ñu sagal ñu vraiment xam nga mm. waaw loolu dong la jox et man jox na ma xaalis bu bari ba may ñëw sant yàlla moo gën daal ku baax la maa ngi koy gërëm di ko sant tabaski bi soo gisee maa ngi def benn émission ñoo ngi taxaw nii guy gaa ngi taxaw ma naan sama rak sama xarit grand champion mm. ndam am na ko di wax Abdou Diouf ñun ñëpp ñoo ngi fi ak Aliou Mané comprendre Aliou mm. Mané comprendre nga ñoon ñoo fa nekkoon noonu tabaski ba ñoo bokk fu mm-hmm. ci biir foofu ma gis ay ni guy gi di réagir ak ni muy doxalee comportement ma xam ni àdduna du dara. da nga ko def wala da man non guy gi musuma wax ci moom lu ñaaw. ay xarit sama rakk la non sama rakk la bu set nga yor moom mu am xol bu set Sëriñ Fàllu la. billaahi wallaahi wa taala fekk yéene naa ko lu bon yàlla naa ci jiitu. Hmm. comportement bi mu doxalee at ni mu defee moo ma neexul. moo tax ma ne daf xañ ne dafa am ci lu gën a am lu koy poussé. xëy na waaw waaw comprendre nga. foofu leer na fekkee daa am lu koy poussé. ma xam ma xam sama bopp waaye man de yéenewu ma ko lu bon. na jaam am rek seen diggante. non non. luñ ko bëggee rek. amu ko sama rakk la daal rakk laa ko jàppee. waaye gis naa comportement am. Hmm. waxaguma nag. Hmm. am na vidéo yoo xam ne génnul de. génnul ma nga foofu. Hmm. waxaguma nag. waxuma damaa noppi sama rakk la am na fu ma jaar ak moom. su dee benn fan defal naa ko lu baax man. waaye nag waaw su dee benn fan mbër muy nekk fii géejawaay te waxuma la ma laa defal lu baax. aw ma fu ma jaar ak yow waxoo dëgg. Hmm. yëpp ku ne am na fu ma jaar ak yow seq ak yow ay teraanga. Hmm. àdduna nag dafay dox. Hmm. waaye yal neen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp mbëri nekk géejawaay yëpp ñi nekk si ginnaaw may la yal neen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp yàlla am jàmm ku ci am combat yàlla la yàlla may ndam man yéenuma kenn lu bon xañ na nag dañoo am lu mu gis si man sama comportement xañ ne moo am na moo tax ñoo xam ne neexul leen xañ na comme am yow ñëpp la bëgg lu rafet rek ngay def man ñëpp aw ma lool xam man ne xam xamee lu ma la leneen vraiment pas li ma la xamal léegi nag su ma demee ñun ñu yëg fii nekk doomu géej wa jóge fi dem ba Amérique hmm. am na nu nu waroon réagir hmm. am na nu nu waroon a doxalee hmm. ah pourtant nag di rek sànn instant yooyu man maa ngi wut jàmm man ku yaakaar ni man damay dem Amérique ma torox nax nga sa bopp ndax man tubaarikàlla masalla yàlla teral na ma am naa fa samay nit yu baax ñu sagal ma teral ma damaa indi ay bagage mu mënuma ay bagage ma yépp ko ci oto bi ci conteneur waaw ma yegg ko ci conteneur bi. mais dégg naa jox may na tegal foofu sa baaraam. tegal foofu sa baaraam tegal foofu sa baaraam. am nga fa oto sant yàlla. oto bi anamu. Pape Maguette mi ngi mi ngi ñëw. yàlla yàlla def jàmm. maa ngi nuyu maa ngi nuyu maa ngi nuyu sama maa ngi nuyu sama rakk ji. yàlla ko yàlla defal jàmm. Hmm. ban rakk non Afia mënu koo fay booy boobu. ak directeur. Hmm. moo Ndiaye. Hmm. mënu ma leen fa ak coxo. coxo Gambien. <laughs> Baye bu mag bi ma Fall doomu Géeja way waa 116 ñëpp paa yi toog buntu place Al Ousseynou ñëpp maa leen gërëm di leen sant. Ah, am na ay paa yu fay toog. waaw non paa fa la ñuy dañuy liggéey waaw dañuy liggéey <laughs> léegi suñu liggéey après ngoon fa la ñu gën a placé daal yi waaw daal yi gis nga rek non ah, non kii moom daal yi gaa ngoy jël yow tegal kii daal yi euh, ku ñuy wax euh, xaadim gaa yi di ko tooñ naan ko euh, ma di ko tooñ naan ko yolom na borom yolom na grand bu baax grand bu baax xaadim yolom na na xaadim ya mafaal moo koy tooñe noonu sant sama grand ba ci kaw am lépp Amérique la lépp New York non man lu ma sol Amérique la jóge bilaay am na lu ma solagul sax xam nga. affaire jaaro yi jaaro yi moom local ah, jaaro yi fii la jógee. yi moom Sénégal la moom waaw. sama sëriñ yee ma ko jox sama sëriñ xoolal yow li ngay takk te doo daan kenn. ma yow dimbali ma may takk taxul ma daan man mosuma dem si mbër di ko liggéey man mosuma dem si liggéey mbëram. ah teel micro bi rek wuy ma. Ah, gaa kii nu mu tudd sama sëriñ bi ah. kan. sëñ Cissé non wax naa ko sama xay kooku sama xarit la mm. kii nu mu tudd prince prince Sissoko prince Sissoko prince xam ko sama xarit la sama xarit la prince Sissoko Mohamed Mohamed prince xam nga ko hmm. Mohamed sama xarit la sama sëriñ la léegi yow voilà léegi ma laaj la benn at xaadim kañ yi dem nga Amérique def nga ko cinq mois ak quelques jours waaw ak dix jours waaw bi nga fa demee ba defoo ni gars comme nee nga euh, kii nu mu de infra rouge booy yëpp nga fa ñoom ñëpp booy dañoo am jom dañuy liggéey